nga li li waar mooy euh, wax nga ko tey 3 mai ñi sargal mbooleem taskatu xibaar si àdduna wërngal këpp mhm. jëm si seen ak ak yelef euh, Sénégal nag dafay dem naaw parce que rapport bi nga xam ne wala bokk euh, li nga xam ni Reporters sans frontières génne encore une fois fanweeri place ak benn te dama ne du gulet booy boobu boo koy xool boobu léegi Sénégal dafa nekk dans une phase de dégringolade jëm si li nga xam ne mooy position bi mu amoon si wàllu liberté de la presse boo ñëwee si yenn kuréel yi nga xam ne ñi ngi euh, euh, si à l' échelle internationale su mel ni CFJ au niveau de New York bi nga xam ne moom tam day saytu bu baax liggéey taskatu xibaar ci àdduna wërngal këpp janvier euh, décembre décembre décembre bi passé la dugal Sénégal ci li nga xam moo di zone rouge parce que itam jàpp na ni ñi ngi xoqatal taskatu xibaar yi xoqatal taskatu xibaar yi yemul rek ci li ñu tëjee taskatu xibaar waaye intimidation morale et physique parce que gis ngeen taskatu xibaar yoo xam ne dóor na leen ci ay rassemblement politique ay taskatu xibaar yoo xam ne ras euh, euh, agressé nañ leen ci permanence boo xam ne conférence de presse moo fa amoon ay taskatu xibaar ñi ngi recevoir ay menaces de mort or gis nga ay këru yëglekaay yoo xam ne dañoo xëy ay télévision yoo xam ne dañoo day xëy couper seen signal kamaj te tàgguwuñu leen du mise en demeure du dara donc loolu yëpp boo ko dëxëñee dafay mel ni jamono ji daal euh, lii nga xam ne moo di liggéeyam tes ko ci xibaar euh, ku bàyyi booy génn sa kër sa waa kër say xarit dañ naan ah looy wax de xam ko. dafa voilà c'est ça mais ça ne devrait pas être le cas fi Sénégal jóge ak fi Sénégal tabb ta tab bi defe naa ne nag y a un grand écart par rapport li nga xam ne mooy liberté fondamentale d'exercer le métier de journaliste le droit d'informer et le devoir le devoir d'informer et le droit de s'informer je crois bien que la charte fondamentale constitution de notre pays et de ce point de vue là jàpp nañu ni nag journaliste bandi amu fi ñoo xam ne dañoo def ay ay faits délictuels loo xam ne c'est en dehors de leur de leur li ñu fi tegu comme journaliste yëpp c'est véritablement dans le cadre ñu si bari bokk euh, dans le cadre de l'exercice de la profession te jàpp naa ni am na ñoo xam ne teg nañ leen loxo boobu ba léegi Euh, amul loo xam ne am na si lu bees. Mhm. ma jàpp ni nag koo tëj ay weeri weeri weeri kaso ñaari weer ba ñetti weer dégg nga te si loo xam ne mënu nga ko juger sax en flagrant délit wa illaa li gën a lu gënoon gaaw nga def démenti saisir euh, instance yu mel ni correct par rapport ak information bi muy joxe euh, lii nga xam ne mooy troisième retour de parquet bi nga xam ne mi ngi mi ngi dal kii nga xam ne mooy suñu confrère de Babacar Touré Kewoulo si mbir yoo xam ne dégg nga maam. da ngay da ngay xaw a waaru daal defe naa ni ak jigéen ji nga xam ne moo di Coro Maxu Mandela ak war na lor gi mu war na lor dontele moom euh, mbir la boo xam ne ay affaire internet la waaye nag amul plainte boo xam ne teg nañ ko si nondam defe naa ni dafay dafay xaw a mel ni intimidation mm-hmm. te en Sénégal waroon na dépasser cap bi